ñun suñu liggéey dañoo nekk entreprise boo xam ne dafay yëngu ci wàllu for mbalitu plastique bi di ko toggaat di ko joxaat beneen juddu ba yenen usines yi mën ko jëfandikoo di ki defaraat ay produits loolu nag mooy suñu liggéey te ku ne ne liggéey boobu boo def plastique bi mu ngi ci biir kër yi mu ngi ci mbedd bi donc dañuy faral di liggéey nak ak nit ñu bari mana muy góor ak jigéen ak ndaw ñi ci wàllu lépp li nga xam ne dafa aju ci wàllu ramasser plastique bi donc ñoom buñ ko ramasser ñun dañ koy jënd ci ñoom njëg li kilo bu nekk fukk ak juróom. juróomi junni yi nit ñu ngi liggéey tey ci wàllu maanaam for plastique bi di ko ñëw di ko weccoowaat ngir am ci dara kon ñu mën a wax ne kon ñun suñu entreprise am na impact bu am solo ci wàllu création d'emploi ci wàllu créer aussi ay revenus pour population yi. lépp dañ ko war a jëfandikoo waat. ngir eh, ngir jox ko ngir jox ko njëriñ. condition de travail yi comme ni ngeen ko gisee eh, yaakaar naa ne Nguéyéne dafa nekk eh, sur le plan stratégique dafa nekk maanaam usine bi nga xam ne ñun moom la ñu bëgg a samp ca Silma mais ñëpp xam nañ ne tey Silma usine ba xajatu fa ndax kër yi ñëw nañu ndar ñu donc mënatuñ fa aussi tamit déployer comme nañu waru déployer loolu tax moo tax ñu ñëw fii ci Nguéyéne am fi site bu mag site boo xam ne na

en valeur ajoutée transformer le négligeable en valeur ajoutée donc c'est mooy entrepreneuriat donc nous ngi ko ci ndokkeel bu baax a ministère de l'environnement m'a ministère de Nous environnement moo ñu tuddee ko étude d'impact environnemental mais nous dafa am également lu am solo lo xamné aussi daf ko war a àndale askan bi dëkk ngeen laajoon nañu laaj leen ñom seen xalaat ci entreprise bi ba ñom jóge nañu fi visite nañu feulé Silman. waxtaan seen biir ba dëkk bi ci boppam moo doog a yëkkati kàddu ne ñoom kat lii du leen lor ndax maire askan bi la fi nekkal d'abord comme gis nañu ne it étude impact environnemental euh, wane na yàqul dara ci environnement bi askan bi d'accord na ci kon yaakaar naa monsieur Diagne projet bi dinañ ko gunge jàppale ci. fii ñu nekk nii dañoo nekk ci benn tool bu 15 boo xamante dañ ci def forage forage bo xamantene ay 60 mètres cubes lay joxe forage bi système solaire moo koy alimenté ak ben groupe électrogène système hybride la voilà forage aussi day joxe ben bassin bu 1000 mètres cubes bo xamantene ne euh, moom la utiliser comme réserve pour que agriculture bi baña a donc ferme Noto bi pomme de terre lañ fi bay bu ñu pomme de terre dañ koy transformer def ko fruit surgelé euh, unité de production mo ngi fi Noto bu ko defee ñu mën a jaay ci marché sénégalais bi par exemple Sénégal fii la ñuy bàyyee pomme de terre bi transformé ko jaayaat ko ci marché bi def ko frite comme ni ñu ko jëndee ci ci ci ci select yi ci wàllum emploi bi vraiment sa ferme ferme bi mën na euh, joxe euh, soixante emplois permanents 60 emplois permanents dina am tamit ay conducteurs ak yeneen partenaires yoo xamante ne mais ñoom euh, vraiment am nañ gunge bu takku boo xamante ne ONG GRED moo ngi fi ONG GRED moo leen di permettre ñu gérer l'eau et la bonne gouvernance ONG Eclosio tamit moo ngi fi euh, moom moo leen di won nu ñuy bayee yaa moom un technicien qui est là Boubacar voilà moo leen jàngal noonu la ñuy bayee pomme de terre bu baax la ñuy xaar ay techniciens lañ yoo xamante ne def nañ 5 mois de formation voilà pour ñu mën a ñëw accompagner euh, les les cultivateurs pour ñu mën a am benn production boo xamante ne day doon de qualité avec un bon rendement. lii nag mooy Sénégal jël ay ndaw yoo xam ne seen xam xarañ na ci mbéy ñu produire transformer parce que création de valeur moom mooy créer emploi te lii misal la boo xam ne def nañ ko fii Kër Mori euh, ñu ngi koy def Sange def nañ ko également Ngolfagné mais dëkk yëpp nañ fa fexe ba xale yi am ci lu ñuy téye ci wàllu emploi parce que création d' emploi ci entreprise la nekk te mooy sunu euh, tànk guddeeg bëccëg